mbokki Leewtoo ñu leen di nuyuwaat bu baax baax fii lañ doon nuyoo tey le 16 la le 16 nag xam ngeen li xew mooy sargal Malick Ngom foofu la ñuy duggee directement ma ànd ak Moussa Fall ci caméra bi ñu ngi suivre ci internet bi ñoo ngi leen di nuyu foo leen mënte ne Saliou Diouf tey ñu ñëw terrain gaal gi mu nekkoon Adrien Senghor ñu indi ko gaal gi Jax wrestling production. waaw euh, ma kontaan trop euh, nekk président amateur euh, Amalda. amicale des amateurs de lutte et toutes disciplines assimilées kontaan trop euh, lu ñu déplacé lamb bi fële parce que ñun ñëpp xam nañ ne xajuñu foofu. moo maanaam fële dafa xat. fële day xat moo tax ñu indi ko fii gaal gi. mais ñuy gis ne yow en tant que président da ñëw jàpp ci liggéey bi ak sa yeneen membres. waaw dama jàpp ci liggéey bi ak samay membres yi parce que Malick Ngom da ko jar Malick Ngom day dundal lamb gis nañ jéego yi mu def ci lamb bi ñun dañuy am problème sax euh, war ko bind. mu ne jarul ngeen koy bind su ma demee dinaa dinaa ci waxtaan ak waa CNG xam nga kooku mu ngi dundal lam kooku mënul xawle eh, ñu koy sargal te ñun ñëwuñu. yaa ci dégg mbokki Leewtoo dégg ngeen président lu mu wax Malick Ngom a jar moom mu ñëw taxaw bii taxawaay parce que daan na taxawaay beneen taxaw mais loo ci mënti dégg danañu fekk Malick Ngom ci biir fekk ay ñoñam ci biir ñoom Alex Ka gars yëpp président ñu ngi dem ci biir xoolal ma.

ziar Malick Ngom Malick ñu ngi lay nuyu. Euh, Birame maa ngi lay fay di nuyu waa Leewtoo Ndeye Kumba euh, Babacar sama xarit ak yàgg maar yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu. waaw mais Malick tey moom gis ñu blouson bi. li ñu décidé daal lañ ñu bañ a toog seetaan amateur ñu arbitré. Uh-huh. pour ñu marqué bés waaw loolu daal lañ gis nga ni ñu solo li yëpp arbitre la. waaw man loolu ma jaax. ñoom ñëpp arbitre Moussa Fall. waaw arbitre yi xool. ñii ñëpp arbitre xoolal yore wolof yëpp. xam xam nga lii xoolal xoolal tey nag toj na ay jooral yëpp toj na fa ah? ay jooral yooyu yëpp toj na fa moom moo tudd naka maam koor maam koor mbiniyaan ah maam koor maam koor a ngoog maam koor a ngoog <laughs> fi yëpp na fi Moussa xoolal mu maam koor la muy def maam koor a ngay joogas waaw waaw tey arbitre yee xewle moo tax <laughs> ndeysaan waaw ki kan la waay kii mooy Mame Kor Faye champion international dëkk Dioral porte Fatick sama diggante am lu ma dewul ci lamb waaw waaw kan nga doon bëreel kan ak kan docteur Faye Amboura Sarr ñoo ñëpp dog nañ ci lamb ji wallahi yàlla xam na ko amul lu ma deful tey nga mujjee yaa ngi ci arbitre maa ngi ci arbitrage bi mais mais tey moom solo loo blouse tey solo doo tey solo naa blouse sax de Malick moo ma ko def dama dama ak ngarab bu bëri déréré di jaamu Malick nag waa di fecc rek wante def ma ne il faut ma arbitrer. maa ma jox gaasu bi mbokki to xoolal ma lii laa ilaaha illallaah. waar ñu mën ko am fuñ ko féetale sant bi rek moo ñu déranger ndax ngom bi waaye loo ci mënti dégg tey beneen bés la ci bés yi bokkul ak yi fi daan xew. arbitre la ñuy jël nañ koo sargal mais attention waa mais mais. mais nuyu naa la champion. fay naa la grand. man maay Adrien Coumba waaw mais Coumba xam nga lu mu doon ci séeréer. waaw Coumba moom xam naa ko bu baax. Coumba moom moom lël bi gis nga gisoo loolu. man maa bi tey. waaw waaw. mais tey kontaan tey gar naa kontaan. tey grand waru ma na sol blouson bi sax. tey dama waroon a ndaanaan bu ñëw. parce que am na arbitre yoo xam ne dañ leen a bind pour ñu arbitre feneen sax waaye bëggu ñoo dem dañoo bëgg ñëw. man mii sax bu ma ci guddi bëggu parce man damaa xoon damay bokk ci délégation bi mais ma toog béeg ci guddi ba ay 22 heures mu ngi ma ne non il faut nga arbitré wu. maintenant ma trop parce que man dafa xamee ne dafa liggéey ci lamb bi de telle sorte que vraiment ñëpp ay kontaan. boo demee ba mbër yi kontaan amateur yi kontaan ñun arbitre yi nga xam ne kontaan mooy suñu secrétaire ah ñu ne sargal Malick ñëpp a ci war a kontaan quoi. waaw mais sëñ bi nuyu nañ maa leen di fay. Ardo. waaw. waaw mais tey saag nga yore de mais dafa mel ni bëggoo dem ci biir de. waaw tey nag euh, sama rakk sama doomu ndey maalik Ngom arbitre moom la ñuy sargal. moom moo tax nag ma am cawarte ñëw. da ngeen jàpp nag ne sargal bi ñuy sargal Malick ñun ñëpp lañuy ñuy sargal ñun ñi nekk CNG parce que dafa nekk ak ñun ci yar ak teggin ak bëgg bu baax li muy def am jàmm ak ñëpp Malick soo ko gisee soo ko seenee ba ñi ngay njëkk a gis muy kaf di reetaan. lan moo ne ci saag bi. saag bi ay pikira ci nekk ak ay bagages. waaw pour euh, gars yi xaw a sonn laa. mais est ce que tey moom picc dana am comme sargal Malick moom yaakaaruma ko tax ndax tey bésu mbégte la. Euh, kenn du ñëw ardo euh, yaakaar naa ne sax arbitre yi duñ joxe ay avertissement ndax dañoo kontaan. waaw loolu la. waaw ah fay naa la. waaw ah, mais tey yow arbitre nga. waaw arbitre la noo tudd. Agat Tening Diouf. waaw tey ñoo xewle. sargal Malick. tey moom daa mel ni. waaw macha allah neexu ñoo xàmmee tey. ci beneen facette lañ génnee. waaw parce que suñu secrétaire général moo xew le tamit foo ñu taxawu ko dañuy taxawoo buur macha allah. waa gis nga en tout cas ci journée bi tey warul yomb. pub yi rek jàlloon na kon warul yomb Malick a xewle dafa war a roof dafa war a xumb dafa war a dagan waaw di bégal Jackson nag di ko remercier na ko ca kaw ca kanam parce que dafa def lu rëy ku def lu rëy am lu rëy Jackson amuñu fayam yàlla na ko yàlla fay xolam en tout cas. mais Balla nañ <laughs> ngi lay fay. Malick Ngom la ñuy sargal. waaw Malick moom dafa nekk euh, presque ñun suñu affaire yi ay famille lañu famille la ku ci xewle daa mel ni ñëpp xew le parce que ñoom ñoo ñu jiitu si arbitrage bi. condition yu baax parce que ñun ñoom tamit dañ dañ dolli xam-xam Malick moom bësam suñu bës la. parce que waaw parce que nit ku baax la nit ku yaatu la ku oyof la des fois bu ñu defee benn affaire sax daf ñuy woo nañu defee leen nii defee leen naa. mu mel ni sol blouson bi ñàkk pexe la tey. non tey moom ñu woon sax sol blouson man mi damaa ñawlu woon njaxas. pour pour sargalu Malick parce que jaral jar na ko waaw moom laa moom laa moom laa préparé woon nag. maa ngi lay fay. tey Malick Ngom moo xew. waaw Malick moo xewle quoi suñu mbokku arbitre. Eh, Malick aussi il mérite ça eh. waaw man la <laughs> waaw kontaan rek kontaan vraiment kontaan dafa mel ni ñun ñëpp lañuy ñuy honoré tey quoi franchement. jax lu ko waaw ñëpp ñëpp la ñuy honoré quoi. suñu laaj ndax kontaan parce que romb ngeen kontaan. non bu baax voilà boo amoon beneen moom bu boobu sax dañ koy wax quoi. waaw waaw waaw waaw mi xëy mi xëy jaabang waaw. xëy Malick Ngom ko eh, ngaro quoi waaw pour ndamtir nu bés fe <laughs> birom waaw kontaan na loolu waaw waaw kontaan bu baax a baax xam nga li olof Njaay naan ab askan boo ci toroxalee kenn toroxal nga ñëpp waaye boo ci teralee kenn rek teral nga ñëpp te Malick dafa doon kenn ci Sesaya ki doon kenn ci ñun doon l'infatigable koo xam ne chaque jour lu jëmal làmb kanam lay dox lu jëmal kanam làmb lay wax moo tax tey bi ko jàkk sargalee bés bi ñun ñëpp mbokk arbitre am yëpp teew teewle ko ci bés bi loolu moo tax ñu ñëw biram yaram nuyu nañ la. maa ngi leen di fay mais. waaw tey moom arbitre yi xewle ko. waaw tey arbitre yi ñoo xewle Malick moo xewle donc Malick ci arbitre yi la bokk donc ñun ñëpp ci ci biir ci biir lañ ko waa. yow yow noo tudd. man Dawda Ndiaye laa tudd. Ah. Dawda Dawda i content daal i content a paax de vraiment na bes fe a paax koy a paax yaam comme Malick ten ne to rappeler rek in fop in eteyo ten genna saate Malick mata genna rimeen waaw waaw andaam a paax meta rimeena o ɓoof a rime to andaam a paax ngeɗan rek da ndamtinoyo a ñaanan in yaam ke ta xaye vraiment ka mérité in fat a ngeɗa ne a ñaane o riko ɗeɓo a ngeɗa ne a ñaane rek ta xuud meen a paax xal yaa gis gis nga tur yaa ngi nii ngi fii nii ñu arrêté nañ euh, ma xool 63 euh, lutteurs waaw. 63 fan ngeen bëgg a arrêté. 4 lutteurs la ñuy arrêté waaw. kon ku am ku ñëw ba ji 68e place wala 65e nan lay demee. 65e. waaw. waaw ah, loolu day doy waar man loolu mosuma ko xam. kooku daal du kon du bindu. du bindu. dañ koy jàppee ku tardé. voilà dañ koy jàppee ku tardé. mais il paraît qu'aujourd'hui on a dédié la journée à Malick Ngom. Malick Ngom waaw c'est un c'est un frère. Et puis nous, nous sommes ensemble depuis pratiquement bientôt 7-8 ans, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, Jax a dédié, je sais pas, le, comme l'appelle, euh, la lutte d'aujourd'hui. Et je me dis que euh, c'est un grand plaisir d'honorer par exemple un des membres du CNG. Parce que moi, quand je dis que c'est Malik en tant qu'arbitre qui est honoré, mais c'est tout, euh, c'est la CCA en général. mais c'est également le CNG en, en général. Parce que euh, la commission centrale des arbitres est un démembrement euh, de, de, le, euh, du CNG. Donc moi, je veux en déduire tout simplement que c'est le CNG qui est honoré. Voilà. Tidiane waaw ça va. waaw tey moom bëgg nga de. waaw bëgg nañ trop mais bu waroon na fi gën a mën a neex tey yàlla dafa def ñu honoré sunu frère sunu xarit. sunu lu bari si ñun te yàlla fekk tey sunu góor gi ñoxoor fekkewu ko tey jii xamoon na ne yàlla def na li gën waaye fa mu tëdd euh, dina tàlli daal te xam ne xale boo xam ne nawoon na ko joxoon na ko cër amoon na estime bari si moom ñu honoré ko derrière wi te yàlla rek moo mën loolu daal ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla xara aljanna daal donc Jax mi créé occasion bi euh, remercier ko rek laa mën a def bon remercier ko ba fu fu fu remerciement yem euh, xam ne vraiment euh, balaa ngaa xam nit ñi dañuy jël affaire bi teg ko foo xam ne mel ni lu mosul am la te yàlla xam na ne Jax décoré na fi Sitor Ndour décoré fi Babacar Diop décoré na si yàlla ñoxor ñu koy remercier ne duggulee kuy tànn xalaat benn affaire rek après mu def sargal maître la kii donc dañ koy remercier dama am fierté am contentement parce que bu ko jaaralee ci man mel na ni ñoom ñëpp la ñu honoré bon yenn saa yi dañuy gis arbitre jël décision fekk mën na am décision bu baax ba mu jël sax ci kenn ci juge yooyu moo ko ko génnee mais comme arbitre bi rek la ñuy gis donc dañuy jàpp ne arbitre bi la mais ci moom la jaar mais mën na am sax ci ñeneen ñi la jógee donc kon buñ yëkkatee lu mel nii genre raaya yu mel nii teg ko ci sa loxo donc li gën a rafet mooy ñu delloo leen ko ñoom ñëpp. mel na ni ñun ñëpp lañ ko sargal te effectivement arbitre yëpp lañ ko sargal moo tax ñoom ñu ngi proposé léegi di naan buñ sañoon amateur yi la ñuy tànn ñu ñëw gérer arbitre combat yi ñun ñu toog seetaan. ñoom ñu nekk lu mu Alex lu mu nekk ci. Alex wax ne lamb moo ñu boole euh, yàlla def ñu bokk jiko bokk lu bëri donc mënuñ toog deux jours ou trois déggante woon bon mu nekk sama xarit vraiment nekk sama nit ma koy remercier parce que koo xam ne daf la jàpp te yàlla tax. Euh, may gërëm El Hadj parce que moo ñu njëkk a boole Ablaye Diouf ndem si yàlla Ablaye Diouf ñëw aussi na dama gis ngeen bokk ci ko boolewaat ñu donc depuis loolu wax dëgg fa yàlla liñ ma waxoon ci moom gis naa ko parce que nit ku dëggu la te nit ku jub la tamit franchement loolu rek moom ma gën a neex ci moom et yàlla boole ñu ñuy ànd. mbër yëpp ne danañu bëre ci sa bés ay amateurs comme ñoom président des amateurs ci boppam Saliou Diouf ñu jàpp ci organisation ma wax ñu ne ma Malick a xewle. mu mel ni eh, day day naan daa mel ni garab boo xam ne sax dafa laq beneen ba. la euh, man d'habitude sax ñun ci taal bi fii ay deux heures lañ fi daan ñëw mais dama obligé ñu woo ma téléphone na ñëwal parce que am na lu ñu indi fii il faut nga gis ko mooy. OCRR Refum benn association bu tudd OCRR Refum may nuyoo passage président Mahfouz bi nga jiitee dëkk Niakhar Euh, ñoom ñu ne dañ ma defal surprise tableau ba la ngeen di gis xam naa bu ngeen yeggee di ngeen ko mën a gis ñoo xëy ci suba ñëw ne dañ koy taf ne ma il faut ma ñëw fekkee ko donc j'étais obligé ma ñëw fi ay 10 heures toog fi jàpp ak ñoom ci organisation bi parce que nit ki la ja ñaaxaar lañ fa naan ci 3 millions yi jël seen oto ñëw directement nelawuñ donc loolu vraiment aw ma seen fay ak bépp ki fi jóge ñi fi ñëw yëpp xam nga boo tuddee Alexis euh, ñëpp ñi muy àndal mënoo leen ñàkk a tudd muy Ndiak muy Antoine foo leen gis fu kii dee keneen ki dee na foofu donc bu ma nee Alexis rek tudd naa leen ñoom ñëpp. Euh, tuddoo séeréer refum association du du fay euh, association nationale des amateurs de lutte euh, sans frappe bi du du fay jiite as Amalda bi nga xam ne Saliou moo ko jiite ak ñoom moo Diouf yëpp kenn desul wax dëgg fa yàlla kontaan naa ci suba bi ma leen ñëwee fekk leen fi rek yay Jax yàgg na di organiser ñoom impliqué wuñ ci nii. donc bu jàkk impliqué woo bàyyee ñu pratiquement affaire bi ñoom ñu takk ci nii ne ndax man vraiment mënuma leen fay yal na leen yàlla fay quoi. teg na ko bopp lu mu nar lu may wut dafa di taxam de attention mu ngi puus boo génnee ñu avertir la mu koy puus arbitre sifle waat na indiwaat leen ci xale bi yëngatu na ndeysaan dara la ko toj waaw du mën a ñàkk Serigne Moustapha Ndiaye mu ngi koy téye waaye jaru ko wala neexal ko ci kay ndax Malick moom la sargalam la la ilaha illallah ay lamb ay mbaam lu ba léegi ñun farma bi. naa la seex bi. tey Jax moo organisé def sargal Malick Ngom sum production kañ lay ñëw. Eh, ñu waxaguñ ci bésub tey bi muy sargal Malick Ngom yaakaar naa yéen ñii di acteuru lamb képp ku ko dégg rek doon na loo xamante ne rafetlu nga ko ñu ciy jaajëfal Jax production bu baax a baax ci initiative bi sum production di waajal dimanche prochain tombeeg le 23 février incha allahu rabi nar a xewee arène Adrien Senghor ngay tëgg. 1 million lañ fas yéene tëggal mbër yi foofu incha allah. bi ñaata la. 2000 2500. 2500 incha allah. nga seetaan plus de 100 combats 2000 combat bu la lay dikk. ah de heureusement <laughs> mag ma li ma ne xayma bi waaye nag munu ma weesu kaddu yi te jaajëfaluma leen parce que lii ñoo waroon def déplacement bi fay leen xaalis bu bëri ni mu doon demee autant mais léegi lépp da ngeen ñu ko yombalal. di leen ci jégalu rek parce que des fois ay jafe-jafe arrivé leen ci buntu bi ngeen xam ne du suñu coobare buñ sañoon boo leen ñëwee dugg librement ndax li ngeen ci joué dafa am importance trop bés bi mënuñ koo jaay organiser rek leen mun keneen ku ci jot ku ne yéen a tax kon ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax a baax. kooku Ablaye Diop yàlla sum Djilass production tey Jax moo organisé waaye xam nañu ne duut ñaan toujours mooy mooy Jax. dëgg la Biram nuyu naa leen yéen ñëpp. di leen sant bu baax yéen waa Leewtoo TV namm leen lool nag waaw eh, waaw Jax moo organisé tey waaw woo amateurs yi yëpp bàyyi ñu kenn nag ñu ñëw ci jàmm ñibbi ci jàmm loolu daal lañ woote. ñun ngeen kañ ngeen ñëwaat. Eh, xam naa yàggatul nag yàggatul affaire bi moo xaw rek mais yàggatul ah. xanaa dimanche bii di ñëw rek ànd ak sum production. waaw Abdoulaye Diop sum production arène Adrien Senghor. nee na 1 million la teg billet bi 2000 dafa mel ni combat bu ne ñaar dërëm la lay dikkee. waaw waaw mais c'est normal. combat bu ne 10 francs. waaw waaw c'est normal. c'est normal parce que xam nga amateur yi dañu bëgg lamb te lamb sum production day neex billet lu mu jaayee billet billet rek jar na ko waaw lu mu jaayee billet jar na ko ndax moom cosaan rek waaw te 100 pour cent mbin far ba ñoo fay nekk waaw. muy delloo buum ca mboy boy ga rek. avec suñu production dara du yomb. waaw. ah loolu yaa ci dégg. promoteurs yi ils sont toujours solidaires. mais nag eh, eh, Biram. yéen a ngi fàtte de. muy kan. Birane Ngom lu nii toog. xaritu sum production ak Djilas production. moo toog nii. kon mooy trait bi ñoom. mooy kii du tardé lamp. billet bu bu nekkee cent mille francs sax du ko discuter day ñëw dagg billet dem toog loos mooy Birane Ngom. amee loo mën a doon ci loolu. de moom dëgg maa ngi ci kontaan ndax lamb moom mooy sama moom mooy sama lépp. mooy waaw léegi sa jàngaro boo boo seetaanoo lamb doo wér. déedéet man nag toujours moom lamb def may neex rek dama war a dem lamb surtout nag ma dem boo yàlla booleeg ma ak gars yi ku mel ne Doudou Niane mii mel ne ne Ablaye Diop dañ ma fonk. a ah, bu mu passé foofu it man dama am woykat. muy kan muy Mbayang Loum moo tax ma gën a siiw ci lambu. mooy moo gën a neex ci Mbayang. Mbayang dama xam ne Mbayang moom li lambu bi laaj rek dana ko def su neexee biraan su naqaree biraan dana ko def boo gisee nag avancement bu mu am ci lambu tey mooy moom woyam yëpp lu lambu laaj rek mu def ko loolu moo loolu loolu loolu la ma gën a neexee. ndax njom ak song la li gaa yi wax yëpp loolu amu ci lamb lamb daal ak song bi daal bu ñëwee rek na ñëw to mbayang nag day seet ak song bu ak song bi ñëwee rek foofu foofu la koy jële maanaam dafay woy bari bi ci biir. waaw dafa day woy xam li fi nekk ci lamb ji mu daal di ko woy léegi nag bu ko dee def loolu ah mën naa gis sama bopp keneen nit mën naa gis sama bopp waaye mbayang moom li lamb bi laaj rek da koy def loolu moo tax mu neex ma lool. Moussa Fall. lamba ngi ni ak li mu àndal lamba dafa am taarix am histoire boo déggee Birane la mu wax am na lu muy wundu boo dégloo Khady Diouf bu njëkk déglu Maye Ndeb nga xam ne lii muy wax am na fu mu ko teg waaye loo ci mënti dégg ñii yaakaari làmb lañu Ablaye Diop muy Doudou Niane muy borom euh, euh, kii euh, comment dirais encore Souley Sagne day ñoo xam ne tey bu ñu tëgalee làmb làmb am Moussa kon nañuy continuer tëgg amateur yi ñëw toog seetaan mbër yi dem bëri ci tëkkat yi tëkk feckat yi fecc ñun ñi nga xam ne ay amateur lañ nag non seulement ay journaliste lañ waaye musa ñii c'est des gens yoo xam ne état bi da ci war a bàyyi xel kon ba ci kanam danañu dem ci Malick Ngom xool lan la ak naka la jërëjëf xoolal ma taf na ko da koy mboot na ko mboot na ko daanu na ñoom ñaar ah ka mbootam ga daanu di daan na ko daan na ko Moussa mais tey moom lamb ji moo gis. waaw lamb ji moom tey du yomb quoi parce que euh, grand bi xewle man grand bu cool la quoi bilaay wallaay loolu képp kuy axlu xam nga loolu muy comment dire Malick Ngom gaan bu baax mbir yëpp la yemale man loolu laa gis bopp. ah. waaw ne leen xanaa ñu jàppale seen doom yokku ñaan yi yokku baax a baax a baax xam nga pré saison bi dañoo war ay gàllankoor boobu maa ñaari drapeau laa jël nag am ay gàllankoor feebar boobu ba léegi tey laa soo ko compétiraat mais tam ñu ngi leen sant di leen gërëm parce que ngir yéen man yéen rek laa déglu yéen rek laa seetaan démb laa laa mu ma mais bu passé rek damay yéen laay wër tapé rek seetaan lépp pour ñu ñëpp xam ko daal wax dëgg si yàlla yéen itam ay borom baax ngeen quoi te man seet naa site yi bëri nañ mais yéen yemale woon mbër bu mag ku ngeen xam ku ngeen xamul da ngeen di jël ñëpp kon yéen itam yàlla na yàlla yëkkati ba si kaw quoi yéen a xam li ngeen bëgg yàlla na ko suñu borom defal Aliou Ndour nuyu nañu la maa ngi lay nuyu Biram di nuyu waa Leewtoo TV yëpp tey sargal Malick Ngom la waaw tey sargal Malick Ngom la muy arbitre international euh, def fi lu nekk di koo xam ne perfectionniste la moom lépp lu muy def rek day bëgg mu day bëgg loolu bokk parmi les meilleurs mooy la lépp lu muy def day bëgg mu jiitu te di doomi séeréer teg si vraiment gëm boppam bëgg boppam donc tey ci suñ demee ba di ko sargal dañ koy dañuy naan lu lu yenu maanaa la lu normal la parce que dama gis doomi Sénégal yu mel ni dañ leen di war a sargal à leur vivant dafa am solo parce que day tax ñu gën a fas jom yu gën a góorgóorlu donc Malick Ngom Jax lii mu def nii donc dañ koy rafetlu bu baax baax surtout ñun amateurs yi dañ koy rafetlu. gis na yéen ñëpp da ngeen takku ci liggéey. waaw c'est xam nga amateurs yi ak arbitre yi ñun ñoo bokk làmb ji te fois ñun li nga xam ne ñun dañ koy kaas jëmale si amateur dañ koy kaas jëmale ko si arbitre yi parce que ñoo bokk liggéey bi ñoo bokk bëgg-bëgg bi muy làmb du jëmale làmb kanam donc la ñuy wër donc Malick Ngom bokk si arbitre yi nga xam ne vraiment ñoom lañ gën a ràññee mënoo xam euh, mbër yëpp a bëgg Malick te amul mbër mbër yëpp a ko bëgg amateur yëpp a ko bëgg te pourtant du moom moo fi njëkk a arbitré du moom moo fi mujj a arbitré donc loolu si Malick donc dama bëgg muy amateur muy arbitre muy mbër ñëpp jël sa exemple exemple mooy lan soo nekkee si mbër jéem a la rafetal jéem a la ànd ñi si dëgg. jéem a def li nga xam ne moom mooy dëgg su boobaa d'accord di nga bëri noonu mais ñi nga xam ne ay nitu dëgg lañ dañ lay bëgg te loolu la Malick di dund donc ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp vraiment di gërëm Jax si li mu koy sargal parce que daf ko mérité quand même daf ko mérité daf ko mérité merci beaucoup. fële benn teñe moo ngembo ngemblu rouge bi Pakala jël na ko da ko bëgg ah attention Pakala ay xale bi daan na ko mboq ma rëy na. ñoo ngay leewtoo leewtoo bi gaaw na xool ma tibb na suuf saraxasu laa <laughs> ilaha illallah xoolal ma jël ba ndeysaan na laa ilaha illallah da ko sàcc daan ko daw na song li bi door mu capté ko attention jël na tànk ba bàyyi waat li jël na ko daan na ko waaw waaw Boy ko Boy Faye lu def nii mu koy roñ daan na ko la ilaha illallah impérial ndeysaan arbitre sebe wat na góor moog baabali xoolal ma góor jël na ko la ilaha illallah baabali lu mu def nii daan na ko di la ilaha illallah non mais xale bi doy na waar waxoon naa leen ko ba muy foo ne am na luñ ko dee ah. xoolal xale bi daw na jàpp tànk ba da ko sàcc du ca génn daan na ko daaneel na ko. yëkkati na ko ah jongle na mu bañ mais xale bi day na waar xoolal mu koy xar mu koy xar laay laay la laay ci beneen ga caaka boof na ci kawam caaka fay daan na ko. Caaka daan na ko Moussa Fall xoolal ma benn teñe mais xale bi da koy daan laa ilaha illallah na ko mu bañ waaye xam nga il a du mal à contrôler taayee bokkul taayee bokkul moo tax jàppante bi dëgër na attention pivoté mu bañ. yëkkati waat na ko daan na ko waawaw doole doole jee bokkul gis nga nee na ko dama bëri doole eh xale bi lu muy def nii mais ko ah. xoolal song na ak la di ko kot laa ilaaha illallaah dajale na ko yëkkati na ko ba ca kaw pake la war na ko ndomba penanti na ko ba doy na waar daw na jël ko mu ngay rasu ndax dana ci génn ndax dana ca génn ah Boy Faye daan na ko daw na di ko ah mu mboot ko mu bañ laa ilaaha illallaah ah ah lu xew laa ilaaha illallaah contre Boy Faye mi condition arbitre dafa bokk si liy avancé mbër si liy avancé lamb condition arbitre dafay bokk si liy avancé lamb parce que tey jii nit ku suy arbitre te xel mi neew fi mbala muy arbitre bàyyi soxla yoo xam ne moo ko këram soxla yu ko doy kii mais du concentré wu bay arbitre la kii mooy waral yenn erreur yi. maanaam cachet mbër yi yokku nañu mise yi nañu waaye payu arbitre yokkuwul. loolu laa mënul accepté cachet mënul yokk ay mise yokk ah te arbitre li leen di fay mënul yokk mënuma nangu loolu man te ñoom risque bu risque yu doy waar la ñuy jël ay séeréer lañ xam nañ ni demee donc nañ waxante dëgg daal dëgg nag neexul. da nga bëgg a wax ne booy ànd ak nit ki muy dawal vélo bu demee bay dawal kat kat. war ngaa mën a dawal au xanaa benn euh, oto bu xaw a yamam may sax. au moins nga yor taxi mbaar ba. au moins day eh, dugg taxi. à de la lutte. absolument je suis parfaitement d'accord avec vous donc il faudra le condition des arbitres vraiment c'est exécrable il faut faudra voir leurs conditions faudra vraiment voir leurs conditions je ne suis pas d'accord et je ne cesserai jamais de me pour ça. Ah, attention Moussa lu xew da ko disqualifié mu bañ. ah eh laa ilaaha illallaah Pakala Boulom Sarr daan na ko non mais Pakala mi dinañ ko bàyyi ah. Libidor a ngi koy jël jël na ko jël na ko daaneel na ko waaw waaw daaneel na ko Libidor la ndeysaan fan si kële Babacar mënu ma leen a fay kenn di leen Saliou Sarr David Lewis Baye Sarr ca Paris fay képp kuy bëgg Babacar Leewtoo TV nuyu naa la du mën a ñàkk waa sunu làmb moomu toog di bind muy neex buub la wala Assane Assane Waalo Assane Waalo ngi xanaa Waalo waat Assane Waalo laay xam nga mii mbër. <laughs> waaw leen oto bi. jël final oto maa ko jël ban marque oto la sax lii Ford la wala lan la. Babacar. ma xool. Opel la mag bi kii sama mag la. copain maa ngi lay déggee. tur bi la. man euh, Pape Tall. kii mooy Pape Tall Pape Tall. yow yaa dëkk Guédiawaye. non West Foire. West Foire mi West bu ma làkk fa laay làkk des fois West ah, bu làkk ñëw Grand Dakar. waaw mais booy fay <laughs> mais ci loolu. waaye sant yàlla. am nga jàmm di laay sant bu wér. tey moom lii moom interview mbedd la ginnaaw bi nga jëlee tournoi bi ci caaga fay. ndeysaan. mu mel ni booy fay. dimanche passé yaa jël. tey yaa jëlaat. loolu la yàlla dogal. ah lu xew daam da ngay amélioré wala. waaw gis nga bi ngay doog a ñëw affaire daa xawoon dëgër. waaw gis nga bi ñuy ñëw dëgëroon na mais dama la waxoon ne dama liggéey woon. lu saison bi di gën a dem. Mhm. ma leen a gën a woon li ma liggéeyoon. Mhm. bu ñuy lu ñuy gën a dem muy gën a génn. waaw teg ci tamit démb dama dem. Mhm. ñaaxaar. ñàkk carte finale ci ordinateur. waaw parce que booy xool làmb ji jaxasoo na lool tax na suuf mais bugguma ci ay recours lañ ci bëgg a def mu mujj ma nangu loolu. ma leen yàlla jeexul yàlla yaatu na. moo mm-hmm. roñ suma ay bagages ñëw 30 minutes laa nelaw départ ñëw fii. Mm-hmm. bi ma ne la ñëw ñu dugal yaa ma gën a xam dabu jiwaat wërsëg bi rek bi ñëwee suñu borom mi nga xam ne moom moom ndam te koy joxe moom kese mhm. jox ñu ndam moom yàlla kese moom mun ndam te nit la koo xam ne ku fair play la vraiment te encouragé bu baax naan ko ñun moom làmb nii la quoi ñoo bokk géew bi mhm. Mhm. léegi làmb nii la a bokk géew bi ren ah? ko ci ay ren moom macha allah wax macha allah <laughs> waaw xarit bi yi maa leen dégg ñoom Pape Demba ma fi yaa Marrakech bi Pape Demba ñoom Mansour ah Litaire sama gars ñoom am ni Moustapha waa Salba gars yi aw ma seen fay. waaw mais keroog dama laaj dama la jël benn interview. nga ne nekkatoo fi di jàppale benn mbër ma gis ñu commentaire ne koo jàppalewul du la jàppale yow foo doon waxee. waaw fa may waxee mooy koo jàppalewul du la jàppale. ñoom loolu la ñuy waxee man. du ma jàppale mbër moom mooy maanaam dootu ma nekk di contact ak benn mbër. ah mais bu ñu la contacté di nga am doole yow. waaw maa ngi contact dama doon def te kenn du ma ko defal. waaw xam léegi sax pour pour sa bopp. waaw loolu moo la fi teg léegi bopp actuellement nii. Uh-huh. dama ñëw pour liggéey pour sama bopp. waaw di di la sant di la bëggee yow. waaw di sama yaay ja. waaw fayam. yërëm naa ko lool yaay booy. Mm-hmm. moom rek moo tax may rey sama sama papa yow sedd ci kaw. sama soxna maa ngi koy bëggee. waaw Sira tey dafa jéem moo tax gis. mu dem waaw saa yi daa mel ni ba nga ko takkee léegi mbir yaa ngi baax de. waaw di nga ñëw di nga ñëw fële nag di nga ñëw fële. ba nga def espoir. waaw espoir ba faa ko jóg. dinaa fa ñëw espoir woo ma yow. damay lekk cere de man boo bool la. kaay dem lekk cere cere laa la soxla laa la. cere cere ginaar yeeg cere yaa. dinaa ñëw booy Faye ngoongu gars yi gis ngeen ko jël nga sa tournoi taal sa Opel dem ñibbi oto baa ngoong booy Faye dem na